jër ngeen jëf mbokku internet yu Bprod Media mbokk yi ñu ngi leen di nuyu amati mbégte ak kontaante jàkkaarloo ak yéen mbokk yi tey ñu del si Pikine seet si suñu jigéen suñu xarit euh, macha allah fan yi muy lëmbe internet bi ci liggéeyam bu am solo bu muy def nit ñi bëgg ko mu nekk révélation boo xam ne ci weer yi ngeen ko xam mais li muy def am na solo macha allah <clears throat> pardon Mame Ndiaye Savon tey mbokk yi lañ leen indil ñëw ci palaasam bëgg waxtaan ak moom ci kan mooy maam Ndiaye Savon ndax man euh, xam naa li ma ci jaaxal tuuti dina jaaxal internet yi mooy jekki-jekki nan rek gis Mame Ndiaye Savon ñu bari xamuñu ko mais nag mu ñëw prouver gëm boppam gëm liggéeyam macha allah ba egsi fii mu egsi mbokk yi tey moom lañ leen indil bëgg a waxtaan ak moom ci lu yaatu surtout ci wàllu showbiz ñu bàyyi ko mu nuyu ak yéen ñu dugg ci waxtaan yi. maam ñi ngi lay nuyu di la dalal ci Bprod Media. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax di leen wax dal leen ak jàmm di leen nuyu di nuyu ñëpp ñu fi toog di nuyu sama assistante yi di nuyu waale waa internet bi ak waa TikTok bi ak sama ami parce que tey fu ma egg ba ñëw fii rek ñoom à cause de ñoom la. Mhm. waaw. falaa ko yemale ba nga laajaan ma leneen ma wax. ayca <laughs> bokki internet yu bari li leen di jaaxal ci li may ñëw mooy kan mooy maam njaay Savon ñu bari dañu jékki-jékki rek maam njaay tëll fan la jóge fan la doore lii ci lan la ko dikkee fan la ko jànge lu xew. waaw Mame Ndiaye Savon moom waru leen a jaaxal maam Ndiaye Savon euh, xale la xale bu dëggal boppam ci réew mi marqué ay empreinte am di liggéey. ndax nee naa la lu dul liggéey ci àddina liggéeyoo ko gën. tubaarkàlla ñu commencé ci ambulant ba tey yàlla def ñu ñu am ay béykat di sant yàlla rek te wan ne sénégalais yi lu dul liggéey liggéeyee ko gën kooku mooy maam Ndiaye Savon mooy xale bi dëggal boppam. Mm-hmm. ba marqué empreinte ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. ci loolu su ma la déggee xale yi mën na nu roy ci yow tax tëboo tëb rek ñu ne maam Ndiaye Savon fii mu toll fi la egg si am na jaar jaar comme ni nga ko waxee ci ambulant ci jaayantu si fii. waaw àdduna moom dafa métti te benn wàññ bu nekk ci benn lay njëkkee euh, comme tey maam Ndiaye am na lii wala maam Ndiaye mi ngi nii ak kan mooy maam Ndiaye da ngay jéem a def ni maam Ndiaye wala nga trouvé ni maam Ndiaye ndax loo gis benn lay commencé ndax euh, maam Ndiaye moom nee naa la nekkatul maam Ndiaye Sénégal maam Ndiaye Afrique la maam Ndiaye partout dans le monde la parce que dafa marqué empreinte am wane. jàmbarteem wane fulla ak fayda ba jigéen bu nekk war nga mën a roy ci moom parce que euh, nit ñi lu baax rek lañuy ñuy koppi duñu koppi lu bon mmh. ñu ñëw bërki démb euh, Bercy Pikine ci Wally mmh. avant nga yéeg ci kaw seen bi amoon na coow ci sa diggante ak ñi nga àndaloon dégg na ñu ne am nga am na ñu ñu ci agressé ba nangu seen ay téléphone seen ay xaalis loolu fan la mujj. waaw loolu moom dañuy sant yàlla rek jullu ci yonent bi ndax fi mu mujj neex na sax dafa mujj neex. Hmm, parce que euh, biñ ñu agressé metti woon na lool ci ñun ba ñu amoon da lu ñu metti torop torop torop torop mais yàlla sotti na ci ndox mu sedd ndax yàlla nee naa leen chaque jour rek buy defar day mel ni kuy yàq ndax agressé nañ leen mais ñoom lépp lu ñu lu ñu lu ñu leen agressé woon rek euh, ñoom jotaan nañ ko

ak ndax nit ñu baax ñi nit ñi bëgg Mame Ndiaye Savon ak nit ñi koy suivre ba tax na bu Mame Ndiaye Savon yuuxoo rek am na ñoo xam ne dañuy taxaw pour teral ko te agression bi metti woon na nag euh, ci commencement bi mais bu jëntal bi macha allah sant nañu yàlla ba li ñu yóbbu woon dellu si waat na suñu loxo. ah bon mhm. dañu gis ñi ko jël wala dañ leen ko joxaat. ci neneen ci beneen façon. gisuñu ko ñu ko jël ba ba biñ leen agressé biñ duggee ci soirée bi policier yi garde yëpp nee nañu doo leen xëyee suba ngeen dem déclarer ngeen porter plainte waa amul problème dinaa porter plainte mais damaa toog ci sama direct bi ma xëyee ma daal di wax ni dañoo agressé dama am nit ñu baax ñoo xam ne man rek la ñuy topp ñii dugalal ma ay cent mille ñii dugalal ma cinquante mille am na sax ñu ma dugalal ba mille francs cinq cent lépp ñu dugalal ma léegi kon kooku nga am ñu lay dooleel ba ñu lañ jëloon ci yow mu dellu si waat ci say loxo ba mu ëpp ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi woon ci place bi neuf tous lañ yoroon xaas bi dafa bëri ba ñu jëndaaleel leen téléphone kon sant yàlla doy na war na jaam Mhm. ñu ñëw ci biir soirée bi maam Ndiaye yéeg ci kaw scène bi Wally woy na fa ñu bari mais dafa mel ni yow rek la woy bi soirée bi jeexee. Mm. waaw loolu yàlla moo koy def te lu yàlla def kenn mënu ci dara parce que soirée bi ñi gën doon kàpp maam Ndiaye Savon ñoo fa nekkoon waaye yàlla lii la nam maam Ndiaye la nam moon bu bersi bi paase maam Ndiaye rek ngay dégg moo tax loolu dañuy dañuy jàngat jàngat bi mooy taal bu yàlla taal sonn sànni ca matt moo gën nga di ko fay parce que lii lépp yàlla la ak ñaanu waajur mm-hmm. sa diggante ak Waly ndax gis nan woy na la na la woyu rëy morso bi yàgg na lool temps bi mu jël ci yow defu ko ci kenn. Mm. waaw temps bi mu jël ci man defu ko ci kenn parce que Waly euh, artiste la te xam na lan mooy lan moo xew. te xam na ni xale yi dañ maa bëgg. xale yi dañ maa bëgg ndaxte avant mu maa woy bi ma duggee ci soirée bi rek xale yëpp dañoo yuux dañu léegi nag loolu tamit gënoon na ko motiver ba mu xam ni te pare mu fekk ma sama gox ba pare mu fekk ma fi nga xam ne dañ may tiitaroo mhm. ñi nga xam ne dañ maa bëgg ndax nit dina dëkk ci gox ba jóge fa te bu fa dara ne mhm. tëll du ne duñ ne macha allah te man tey bu ma nee bëreet waa pikin gépp ne bëreet mhm. parce que man maa ko fi liggéey ndax boo dëkkee ci gox da ngay séq ak ñëpp jàmm ndax lu jàmm lalul rek du ko laali mais fi may ñëw ko xam maam Ndiaye Savon xam ko ak Kéba bi la waali wooyee la lendemain gis nañ commentaire yi wax euh, Mame Ndiaye zapping Kéba léegi rejoindre Wally loolu moo am wala. mais euh, xam nga Sénégal la ñu nekk Sénégal moom bu ñu bu ñu xëyee il faut ay wax am mais Wally Seck ak Kéba Seck benn la ndax Nogoy moo jur Kéba Nogoy mooy maamu Kéba Thione Seck ak Kaabu Kéba sekk ñoo bokk nday ak baay doom la ci Waly sekk kon famille Faramareen rek laay topp ndax Mariasine may sa bige boo nee Kéba sekk Mariasine may sa bige may soo tourné danga naan euh, Waly Mariasine may sa bige kon benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw kay ndax Kéba Kéba bi ma demee ci waal bi ma xëyee daf ma woo kontaan. kontaan. barki Serigne Touba kon kooku nga xam ni euh, même même famille la daal. kenn mënu ko xar ñaar. Mm. ndax waali tey bu dekkoon dafa soxor baa mu ñaan xam na ni keebaa moom ma njëkk a way kon du ma way. mais nañu nañuy xool sénégalais yi surtout loolu nañ ciy xool mm-hmm. waali bu amoon benn xol bu naqari ci li ma keebaa way bu ma ñëwee duma ma wayaat mm-hmm. waaye dafa xam ne keebaa sekk baayam la te way na ma way wu rëy mm-hmm. moom it daa ñëw rek jaar ci yoon bi ndax fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp tepp lan lan mën a xaar ci le parce que Mame Ndiaye nee nañ am na surprise yu muy waajal pour keebaa le 20 waa le moom mën nañ ma xaar fu nekk parce que keebaa jaral na ma lu ëpp le 20 ndax jamono ji ñu toll Kéba rek laay topp macha allah euh, te Kéba Seck dafa ma way te way bi ma way jigadiwu ma parce que nit way na nit ba sonn mu fay te Kéba jigadiwu ma nag ma gën a tàq Mariasine yàlla na yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi ba ci kanam kanama kanam a kanam ñi jiima imité Mame Ndiaye kon ñoog moom duñu benn ci savon yi ci produit yi ñooñu buñ ma jéemee topp dama leen koy wax chaque jour te kuy seen mbokk na leen téye man ku ma topp sa tànk day sa dàll day dagg na damay waaxu nga sa day dagg hmm? man mii waaw ah ku ma topp de amoon conseil gis naa fi ku génn ah du ngeen benn yéen ñaar kàlla ñooñu duma leen déglu na wéruñu dañoo dof <laughs> boo dofee dangay génn di waxi dof waaye ñu nit te génnuñu di wax waxi nit ndeysaan mbokk yi ni leen ko waxee Mame Ndiaye Savon lan leen indil mais bala ñu la bàyyi am na suñu benn doomu pikin bala maa xuus ci waxtaan bi sax ñu ñu ñu ñaanal ko pour Pape Sarr suñu suñu xarit la suñu waay la te day xeex ngir pikin ku xam Pape xam ak Eumeu Sène Pape Sarr Ama Baldé Pape Sarr Boy Niang bu Pikine doomu pikin la am na jafe-jafe ba ñu téye ko loo ci mën a wax rek ci ku fu ñaanal ko yàlla mu génn. yëguma ko de. yëgoo loolu. kan mooy Pape Sarr. ndeysaan xamul Pape Sarr. xamuma ko. da nga koy xam da koy da nga koy fàtte rek. mais en tant que en tant que doomu Pikine waa waaw lañu la ñu dëkk xamuma ko nag yàlla rek a tax may wax. Mhm. ku dee ak sa bàmmeel. xamuma ko. Mhm. mais comme Pikine la daanu seen kaw. Mhm. Euh, dama koy ñaanal bu baax a baax. ndax ñun Pikine lañ. te Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. donte xamuma ko mais deretu Pikine day joué. maa ngi koy ñaanal bu baax a baax euh, te mu xam ni. tolof tolof du ñàkk ci àddina. xale yi bu ñu xalaat ni ku am tolof tolof dangaa bon maa ceeri ñëpp a jaar ci tolof tolof te tolof tolof boo ci xasee ba jóge da ngay doonaat beneen keneen te yàlla na ko yàlla dimbali ba mu génn ci tolof tolof te nattu la nag du lu bon nattu la bu ko yàlla dal bu ko yàlla teg dog day day mhm. secret Mame Ndiaye Savon lan la secret Mame Ndiaye Savon lenn dong la fulla fayda personnalité fulla fayda personnalité ak liggéey. ak liggéey fayda. personnalité ak liggéey bu deñee ci ni dara desatu ci. souvent dañuy gis ñenn ñi di commentaire yu négatif boo koy gis ci internet bi noo koy dundee. koo gis muy koo gis muy commentaire lu négatif xamal ni kooku xol ba neexul boo xëyee añoo. reeroo am connexion cent francs kooku doo wax lu baax boo lekkee ba sóor. naan ba màndi yor wi fii noppi gar mi ngay yor. <laughs> añu sax ndax di nga tala wax. di nga wax mais sa xol du neex. ndeysaan. sa xol mënul neex. ndax yàlla mooy may te yow yàlla xam na ni yow carrément baaxoo ba mu lay may ndax ku bon rek mooy wax lu bon. ku bon mooy wax lu bon. c'est que dañuy gis Mame Ndiaye événement bu ñu génn rek dina am ñu dal ci kawam wax. ene time ba kazu rajab bi bërki démb beer si pikin lu xew. waa seen xol moo neexul. barki Serigne Fallou Mbacke seen xol moo neexul waaye bu kenn mere kenn ndax xolay gàllaaj ak ñaanu waajur te ñaanu waajur bu tiqatee ci nit dara desatu ci surtout ñaanu waajur maam Ndiaye Savon lii la ko yàlla def nga ne yàlla li tax mu koy def nii dangay ngay sonn fexeel yow yàlla def la comme ni mu def maam Ndiaye Savon te nga jéem a am ñaanu waajur gis nga misaal bi mën naa bañ a sori ndax ku ci nekk sa bopp doy na la misaal gis nga xale bu ko ndeyam ñaanalee baayam ñaanal ko. neel tekk ci moom boo jéemee ci moom da ngay daanu te foo fekk kuy attaqué ku ndayam ñaanal kooku boo xoolee ba ci biir ndayam ñaanal ko ndax ndayam kontaanul ci moom misaal bi mën na bañ a sori xale boo gis mu nekk ci internet bi di wax lu bon ak def lu bon ak di wax lu ñaaw xamal ni kooku amul ñaanu waajur ndax ku am ñaanu waajur boo toogee ci internet di nga xool li jëmale nit ñi kanam nga leen koy wax maam Ndiaye Savon ak yaayam mm-hmm. dégg na yéen ñaar complexe yi ngeen doon mu nekk sa xarit nga bëgg ko yërëm ko di ko taxawu ci lu bari. waa loolu sant yàlla rek ak jullu ci yonent bi boo amee yaay ju baax il faut nga bëgg ko yaay ju baax yaay ju yaay ju lay soutenir mhm, loolu dong la mooy secret bi ak jéem ko bégal ndax yaay lu ma munti mel yaay la danga koy jéem a bégal rek naat ko ci sa bopp. mën a nittali ci moom ndax tëbul woon tëb neex am ngeen ay jaar-jaar. noonoo man sama yaay aw maa moom benn jaar-jaar ndax nekkuñu woon man dëkkuñu man yaraan laa amul dara lu ñu dund maak moom lu metti mm-hmm. lu dul jàmm ak salaam mu nekk sama yaay mm-hmm. yàlla def daal yàlla dimbali ma ma koy teral mm-hmm. à part amuñu dara lu ñu metti wala lu ñu dund maag yow moom non non. li ngay def fan nga ko jàngi. <laughs> li may def dama ko jàng euh, am na ci loo xam ne don la ci man am na loo xam ne dañ ma ko jàngal mais li ëpp don la parce que yàlla du tëj bunt tëj paranteer wàcc rido uh-huh. ndax yàlla du la xañ jàngoo ba pare mu bëgg xañ la lépp ci àdduna mënul nekk. Mm-hmm. Uh-huh. maam Ndiaye jàng. jàng ma waaye ñeewuma ko jàng ndax kiy xëy ne bu bu kiy jàng bu xëyee ne lii dama koy def man suma gontoo def ko. Mm-hmm. xanaa diplôme nga may ëppale. waaye boo xëyee ne damay def bu ma gontoo def ko. est-ce que regretté loolu ñàkk jàng bi. fi nga toolu ci sa liggéey. regretté wu ko benn yoon xam nga lu tax. ndax tey lii laa bëggoon. jàng baax na. Mhm. te képp kuy xale maa ngi lay wax naat la pour nga jàng. Mhm. parce que am na lu ma ciy regretté parce que léeg nga bëgg a liiral sa bopp te doo mën a liir mais jàng leen. Mhm. waaye tamit ku jàng gënalu te nga say parents sonn demal nga liggéey. ndax lay xëy di jàng di am diplôme boo liggéeyee am ko nañu sant yàlla julli ci yonent bi jàng baax na ñàkk a jàng tamit la même chose na nga am sa xam sa bopp rek xam fi ngay teg sa tànk am ful la am personnalité ndax léeg-léeg da ngay gis ku jàng ba ne ar yey ay kayitam te da ay défaut rek lay def sant yàlla daal kontaan nañu mbokk yi duñ ko téye bari ndax ñi ngi ko fekk mu ngi nekk ci liggéey ñi ngi nuy nekk suñu rakk suñu xarit Awa Ama moo dox euh, diggante bi ba ñu ñëw fi am na nañu mbégte kontaante jàkkaarloo woon ak yow lan ngay tàggoo ak euh, internautes yi. waa maa ngi nuyu bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax seen sit bi yàlla na yegg fu gën a kawe macha allah ba mu nekk ay télé yéen ñëpp ngeen gis ci seen bopp ndax nit lu muy liggéey lu nekk ñaan na yàlla gis ci boppam te yàlla bu seen yaakaar tas di ñaanal sama yi yàlla bàyyi maak ñoom. Euh, di ñaan gudd fan ak wér gu yaram yàlla bàyyi maak sama ami tiktok yi bàyyi maak sama si kanam daal bu ma liggéey ba ci kanam a kanam ba teral samay waajur yàlla may ma gudd fan ak wér gu yaram sant naa awa ama ak assistante yëpp parce que euh, nit ku la bëgg moom jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ ndax koo xam ne day xeex chaque jours ndax yow kooku jar nga di ko gërëm chaque jour euh, di sant sama jëkkër fay biram penda waagaan dugu dugu waagaan xandis waagaan waagaan kumba sanjaan parce que moom it ku ma jàppale la macha allah mm-hmm. mm-hmm. ayca mbokk yi kontaan nañu ni nga ko waxee awa moo tax ñu xam la mu nekk xale bu la bëgg nag hmm, di lay seeti fu mu toog di la waxtaane yàgg nañoo woo pour ñu def ak yow émission mais xëy na tey la ko yàlla dogal amoon nañ mbégte ak kontaante jàkkaarloo ak yéen mbokk yi bu ëllëgee ñu xoolal leen keneen jërë ngeen jëf. bi mi ngi cité Fadiane moom nee jóge na Turquie dàll yi jiin yi semis yi yëpp ñëw na Khady Gueye cité mbokk yi dem leen foofu euh, arrivage bu bees bi ñëw na waagaan sa xarit Khady Gueye dem leen foofu jërë ngeen jëf